ki nga xam ne ñu ngi ko ñaanal fan wu gudd lool waa ànd ak wér-gu-yaram muy Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké xalif général de Mouride ñu koy ñaanal gudd fan gu ànd ak wér-gu-yaram bi ñu dikkee jumaa ji fekk nañ mbooloo mu takkoo takku nag nga xam ne dal nañ ko ci njàngu alxuraan ak xasaayit ak sikar mbooloo mi génn nañu fu ne ci gox yi fasantikoo ci biir Touba ak li ko wër motax dañu ànd ak suñu internet bi di leerlu fas top lépp lo xamne xewna fi na ji ci jàngu alquran ak xasaayid di Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke dafa joxe woon ndigal ngir ñu génn ci bisub altane bi ñëw ci jumaa ji ngir wàcce fi ay alquranul karim jàng fa ay xasida def salaatu na bi ñu ngi taxaw nag ki nga xam ne ci ne lépp dañ ko tegoon ci loxo mook rabiha bi muy Serigne Xaali Jaxate moom di Serigne daara moom it Serigne bi teg léppam lépp ci loxoom xanaa dañ koy jox kàddu gi rek laaj ko sëñ Xaadi liggéey bi maanaam ci bag léegi naka lay doxee salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñi sant yàlla bu baax ni nga waxe waxee Serigne Touba Cheikh Sidil mukhtar yàlla na suñu borom dolli ak yagam ak wéram mo njabot Serigne Touba gep ni mu baxo rek taxawayu kilifa diine waxtu wu nek lépp luy karangel njabot gi ak lu len di sàmm mu nek ci lolu mo sabab ni mu ko baxo def mu jox Cheikh Cheikh Mahamadul Muntaqa sayyid al Basir ndigal mu jot li mbooleem mbokki jullit yi ne altine tey jii ñu def ko bisub jàng alxuraan tuubal suñu borom jéggalu ko sakk ay sarax ñaanal ko moom sëñ Tuubaa Seex Sidi Muxtaar ñaanal njaboot sëñ Tuubaa gépp ñaanal njaboot diine gépp waaye ñaanal jullit yëpp ñaan ci réew mi jàmm ñaan nawet bi suñu borom def ci jàmm woote boobu nag mel na ne mbooleem taalibe yi wuyu nañ ko defe naa ne su dee ci dëkk bi gis ngeen jumaa ji biir gi fees na ak baas yi fenn fu ci nekk tey fi mu toll nii ker yi moom fees na dell te am na mbooloo yi agsi su dee ci biir réew mi it mboolem kër sëñ Tuubaa yi ak barab yi nga xam ne murit yi ña nga fay daje ñi ngi koy taxawale nii ba ca bitim réew loolu di tawféex goo xam ne ku am kilifa gu nekk sa kanam di la ko xëccal lépp luy lor mu di ko jañ jaare ko ci jàng alxuraan ñaan suñu borom loolu lu yaakaaru la ba tax na tey jii ni ñu ko gisee mbooloo mi xëy nañ ci kilifa yi ñëw nañ ñu ngi defe ne fii ak ci kanam incha allahu taala sëñ Basirum sëñ Fadilu ak sëñ Mamor mu sëñ Fallu danañ ñëw euh, ci tisbaar ji ji jàng xatmu bi yeewi mbooloo mi ci turu euh, sëñ Muntaqa mi nga xam ne moom la Cheikh Sidil Munta Cheikh Sidil Muxtaar tegoon liggéey bi ci loxoom jërëjëf. koo nga gisoon ci image mooy mooy Serigne Xaay Jaxate moom moo jiite Rabiatul Madaaris Quraan fii Sénégal kon ñuy euh, joxante dox daje ba ci kanam incha allah